jaaree ko ci ab décret président de la république daal dina jëmmal jébbalum projet de loi d'amnistie ca pencum ndam réew ma ngir ñu saytu ko Macky Sall daal dina ko dénk ministre de la justice garde des sceaux di Maître Aïssata Tall Sall moom mi daal di fësal ci ab document lépp li nga xam ni loi d'amnistie bi lay dana ko dindi. amnistie bi liñ ci jublu mu di fàcce lépp loo xam ne xew-xew la bu amoon euh, diggante premier février deux mille vingt et un jàpp ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février bu atum deux mille moo xam mu amoon fii ci Sénégal wala ci bitim réew wala sax mu nekk manifestation manifestation politique waaye itam euh, di ay fait yoo xam ne dañ koy jaarale ci ay support de communication li ñu àtte ak li ñu àttewul yépp nag si la bokk. muy firndeel ni kon loi d'amnistie bi Ousmane Sonko dana jariñu moom mi nga xam ni la conseil constitutionnel wax ni moom moo tax mu rejeté candidature am ci élection présidentielle moo di mbirum diffamation diggéem ak Mame Mbaye Niang mu dib diffamation boo xam ni def na ko jaarale ko ci xarale yu yees yi ci ab conférence de presse bu coalition Yewwi Askan Wi loolee tax ba mënul nekk candidat ci diirub juróomi at ni ko sage yu conseil constitutionnel waxee document boobee mu ngi xam ne itam ni loi d'amnistie bile dafay dindi bépp beddi wala sax gàllankoor bu amoon ci ak ak yelleefu doomu aadama ci lu ñeewal mbirum politique. jaaree ko ci loi bu ni mel njiitu réew mi la mu bëgg bu ñu sukkandikoo ci moom moo di indiwaat jàmm ci langu politique gi rawatina ci réew mi gën a jubóole askan wi gën a dëgëral dialogue national bile fexe ba képp koo xam ne amoon na jafe-jafe ak mën a jotaat ci ay akam grâce présidentielle bi nga xam ni constitution moom la ko jagleel la